asalaamaaleykum mbokki Sénégal rawatina sama xarit yi nga xam ne ñu ngi Sénégal nekk bitim réew maa leen di nuyu di leen sant euh, li ma tax yëkkati kàddu tey man bëggoon naa mu doon loo xam ne ci yi may yëngul maanaam défendre intérêt sénégalais yi rawatina set nu def pour yok comme Réumi, pour ñepp mën ci jëriño lolu bokk na ci xex yi nga xamné ma koy def di koy depuis très longtemps pour set nu ñuy comme nous koomu nit ñi génnee leen ci li pauvreté combat

كان خوما كيفو تشاخان دما امول جوتو تشاخان واي ولوف نياي نينا سيطاني وخل دغ واي ياخنا خول ياخنا خيل لا وخ ما تي بوله ياخنا خول سونو بن دوم بو ني تودي ابيندو موما في تومل تي لو خامنا يو دوي وار دغ لا امنا اي جيجين يو بري يو خامني ah ñu ngi ci ay jafe-jafe yoo xam ne kenn mënu ko nettali am ñu leen di topp di leen wax ay waxu caaxaan dugg na fii jënd na fii parce que dañu bëgg lii dañu bëgg a lee man nag yàlla may na ma juróomi bant ñoom ñépp ay jigéen la kon nag man man Pierre Goudiaby kenn mësuma xamal yëfu caaxaan

am ci mbégteel bu rëy dem wax ko yi ma koy wax yi ma ko wax te seede nit ñi mën nañ ko seede wax jooju benn waxu caaxaan nekku ci waaye boobu moom dana euh, tribunal dina ko leeral parce que saabu matut a foob euh, fóot boppam saabu du fóot boppam du ma fi ne di jéem a fóot sama bopp waaye nag am na yoo xam ne bëgg naa ñu leeral ko mu leer ci boppi nit ñi man kenn duma tuumal ci loo xam ne defuma ko ma koy bàyyi ñu dem tribunal boobu tribunal dina régler problème jooju parce que xam nga tey ci àddina ku la wax ne woo nga ko dix heures onze heures minuit rawatina trois heures du matin boo leen demee Sonatel sonateel mën na leen àtt naan ah numéro bi de Pierre Goudiaby Moko na nangam bëssu sangam loolu buñ ko buñ ko démontrer ko ngi médaille Grand Croix président de la république Momoko suis ko

rawatina ki fi ne ñëw tàppal lëg bi nga xam ne moo ci gën a rëy mooy bi muy ta bi ñu ko tàppal moom ci boppam ah ça veut dire mënoo dugg ci yëfu caaxaan ci yëfu tàppale rawatina ci yëfu liy tubaab wax mœurs man dañ ma yar dañ ma yar ci jub ci liggéey ci am yërmande tamit te defe naa foofu mooy problème bi boo koy wax dama koy yërëm beneen ni ko fi nga bëgg tabax waroo fa tabax parce que fii yoon la rond point la waaye man mii defal naa ko ñu bari mën naa la dimbali nga am lu lu ëpp lii ma defoon ne comprendre na bi ma kontaan ci am ci mbégte bu rëy ndekete woo comprendre

parce que loo xam ne koom-koom bee ko ma xaw ma euh, ñépp ko moom kenn waru ko jël def ko sa aleeru bopp yaa xam trente cinq millions nga koy jëndee un milliard nga koy jëndee waaye loo xam ne ñépp ko bokk ñépp ko war a bokk jëriñoo ko combat boobu nag maa ngi koy yëgal ñi nga xam ne xaw ma dañ ko yónni dañ ko yónni xaw ma li xew loolu moom yoon dina ko def waaye maa ngi yëgal ñi nga xam ne ñoo fi nekk di pasar pasar suñu suuf yi ne combat bi duma ko bàyyi ba bés bi fi yàlla di ma di di di ma jële loolu duma ko bàyyi mukk na leer ci seen bopp calomnie lii lii li tubaab wax calomnie maanaam ñaaw ñaawtef yi nga xam ne dañ ko bëgg a teg ci nit ñi nañu xam kuñ koy teg ci li ñuy wax harcèlement sexuel maanaam góor yi nga xam ne xaw ma lu nekk seen bopp topp jigéen rek mooy seen métier loolu dama ko ñaawlu ci ñi koy xeex laa bokk parce que am naa ay doom yu jigéen waaye tamit jigéen yi nga xam ne dañuy jóg di tuumal nit ñi rek parce que defe nañ ne bu ñu tuumalee kii waaw ok ñëpp dinañu ñëw naan ah oui ñii nii nii nii man bokkuma ci ñëw ñu rek boo ma tuumalee danga koy def ci wóor

waaw ma ciy sant sama euh, sama gouvernement yi fi nekkoon di ciy sant gouvernement américain di ciy sant surtout sénégalais yi parce que doomu Sénégal bu ñu la joxee bourse nga dem jàng bitim réew rawatina ci école yi gën a rëy yi gën a cher boo war nga ñibbisi dellool Sénégal mu njukkal loolu laaj kon bi ma fi dellusee yàlla may ma balaa maa ñëw suis allé en Amérique quelques mois avec la fa Je suis Mustang Ford Mustang suis maître Wade rek Moustang, Je suis allé Mustang dem suis francs et 1000 francs rawatina y a le sama suis ju baax Cheikh projet BCAO xam nga que li xew suis euh, nit ñi

man dinaa ci xeex ak samay xarit dinaa ci xeex muy tey muy ëllëg ñoom nag ñi koy def dañu am ay moyens yu doy waar mënu leen xalaat sax moyens yi ñu am waaye man doomu Casamance la am na yoo xam ne duma ko nangul kenn dëgg bu amee dañ koy wax mënoon naa toog jàpp sama njàmbur 73 ans yàlla sutural ma bu ma sax dem bitim réew ni ko ñeneen di defee waaye fii sama réew dama dellu si pour liggéeyal réew mi xam ne ah éducation bi ma may muy éducation bu fii muy bu feneen macha allah li nga xam ne jàng naa ko parce que encore une fois bourse biñ ma may moo tax ma mën a am lii loolu duma ko fàtte mukk looloo tax keroog nit di laaj ma waaye yow lu tax ngay xeex ba léegi dama man dama amel njukkal Sénégal loolu rek a ma tax a jóg bi may xeex corniche bi ak a yàgg ak a yàgg saaga nañ ma ci menacé nañ ma ci dem nañ ci lu ne mënoon naa toog jàpp sama njàmbur toog sama kër gi waaye conviction xam conviction conviction mooy loo xam gëm Sénégal gii mën nañ ko transformer man loolu mooy sama problème transformation bi nag ci environnement bi lay commencé. waaw environnement parce que si vous boo bëggee am lu baax ngay environnement nga defar ko bemu bax baax la jang kon nak xex bi nga xamne moma moo jog tax a du tax ma arrêté ko tuuma lu du tax ma arrêté ko ki wax lu mu bëgg ñu bàyyi ko mu def ay kiosque ak xawma lan ci rond point mané ko loolu ma dutu am rawatina mané étudiant yi man

ñu seet waxum coronavirus bi nga xam ne mu ngi ci réew mi ma ciy jël deux secondes pour wax leen lent loo xam ne lu yomb la seen masque yi boo leen ko portee boo leen di waxee ak nit bu leen ko génnee wax parce que ci lii la feebar bi génn parce que am na ñu bari yoo xam ne xam nga dañuy tàkk masque bi et puis bu ñu waree wax yow di koy génnee loolu bu leen ko def mukk bañ a takk masque sax moo ko gën kon nag boobu nañ ko évacuer nañu dellu si ci li nga xam ne mooy liñ ñu tuumal jël naa sama avocat yoon dina wax ndax li mu wax dëgg la wala du dëgg bu dee dëgg la li ma leen woon sànq naa ko delloo président de la république parce que loolu kuñ ko tàppal

daw na yaram moo tax bi ma yeewoo tey ma ni ah Pierre mbir mi def nga ko ci yoon waaw yoon dina leen àtte waaye nag war nga wax ak askan bi pour rassurer leen maanaam buñ ci am ñaari xel Pierre Goudiaby Pierre Goudiaby Atépa doomu Casamance rawatina doomu Sénégal non amna yo xamné xam def mukk ci àdduna mukk ci àdduna maa ngi jégle ni ngeen koy waxee <laughs> moo ko waxoon ci joolaa sax mënu ma ko waxee nii maa ngi jéggalu bëgg rek ñi nga xam ne surtout rawatina les jeunes gis naa seen comportement dëgg naa ne hier dem nañu foofu di manifester je comprends

Euh, bu len ci am vraiment sama xarit yi ak ñi nga xam ne xam nañ ne Pierre Goudiaby bi euh, bokkul ci yenn yi na seen xarit dal man mi ma wax sama avocat na dem Sonatel na ut euh, réquisition ñu seet numéro yi ma téléphoné yépp yépp depuis trois ans bu dee benn yoon rek gis nañ fa ne woo naa soxna si ci li mu wax

wa man dama amul joju jot dama amul jot kon vraiment euh naa lii daal fi ñu ko fi euh may encore bëggon wax ci ay wolof yu yu bëggon na sax bañu wax parce que suis ngi tribunal waye wolof njaay neena roof yàqul jeul kon nak waxna naa li ma leen bëggoon wax merci